aousubillahi min asheytaan irajim bisimillahi irrahmani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel di leen baalu bu baax di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bi daal Alquraanul Kariim Zikru Shifaa ñu leen di firil seen ay gént ñu dellusiwaat ak gént ci beneen buntu ci firi gént comme niñ ko baaxoo jamono bu nekk ñu leen di ñaan ngeen abonné partagé ku am laaj mën nga jaar ci yoon bi ñu koy waxee toujours mooy laaj yi ñu bañ di woote te bañ a bind mënuma di répondre appel yëpp te mënuma di bindante ak ñëpp ñu ngi leen di ñaan toujours rek ngeen di ñu bàyyil vocal whatsapp euh, incité nañ toujours tamit wax ne yëf yi changé na daan nañ firil ñëpp seen gént gratuitement mais léegi dafa déborde ba ëpp li ëpp def nañ ko ci ay vidéo soo géntee rek demal ci page bi seet li nga génn soo ko gisee baax na soo ko gisul nga envoyé message vocal whatsapp comme ni ñu ko wax mais message bi léegi dañuy wax toujours da ngay barkelu 500 francs 500 bi foo koy def ci numéro bii nga koy def Wave wala Orange mu ne ñaar yëpp baax na boo ko ci defee incha danga ko jot da jot sa tontu ci kàttanu yàlla boo pare defal capture ci message bi nga defee transfert bi nga envoyé ñu ko ak audio gént yi ñëw ak ci jiyee benn buntu am solo mooy ñi waxtaanee tey gént gis kër kër gi nga gis nu mel mooy da ngaa gént gis kër gu kër gu yaatu kër gu ngande gu yaatu wala nga gis kër gu bees kër nag ay bunt yu bari la dana indi première partie bi mais bi ma indi tey mooy kër gu mag ba pare yaatu ci biir loolu bi sifatin amma maanaam ci cadre bu général lan lay firi danay firi raaxa nafsiya maanaam danay firi dal danay firi jàmm danay firi istiqraar danay firi saada maanaam danay firi texe léeg-léeg ñëw firi wërsëg léeg-léeg dana ñëw firi liggéey al wadifa li man laa yaamal maanaam koo xam ne amuloo place liggéeyukaay danay firi place liggéeyukaay danay firi tuub maanaam njéggalu bàkkaar ci koo xam ne danga bari bàkkaar dana firi tuxu ci kër gu bees bu gën gi nga nekkoon dana firi tuxu ci étape bi nga nekkoon dem ci étape bu gën a kawe léeg dana firi changement ci dundin maanaam am taxirul axwaal maanaam soppeeku daal yokkute ci li wala fi wax yii mooy li ëpp li muy firi danañ ci ñëw benn par benn ci détail li nga jàpp première partie bi mooy célibataire bu góor boo xam ne dafa gént amagoo jabar wala amoo soxna nga gént gis kër gu mag gu yaatu ci biir toujours may préciser ndax kër dafa bari ay bunt dañ ñëw ci kër gu xat dañ ñëw ci kër gu tilim kër gu ràpp kër gu doy waar yëpp daan ñëw benn benn bu fekkee kooku lan lay firi danay firi soxna incha allah yàlla dana ko may soxna su baax te am wërsëg baax na lool. bu fekkee góor goo xam ne am nga soxna lan lay firi dana njaboot yàlla dana la may doom yu bari te ñu am barke incha allah kooku baax na ci moom. bu fekkee kër gi daa xat lool danaa ci ubbi bunt bu yaatu waaye li nga jàpp foofu baaxul. kër goo xam da ngaa dugg kër gi yaatoon nga dugg ci biir nga gis kër gi di xat day firi feebar bu métti bu tar wala iyaazu billah yal ko yàlla xaaj ñi kër gu yaatu la waaye dafa yàgg tabax boo xam tabaxu comme euh, jamono yu yàgg yee la nga gént kër gi mel noonu nekkul modèle yu mujj yi lan lay firi day fii di jëf joo bàkkaar boo defoon bu yàgg ba tuuboon ko ba doon ko rëccu danga ko defaat foofu moom baaxul léeg nag foofu danay firi tuub danay firi jéggalu bàkkaar ci yow léeg-léeg léeg danañ ñëw ci détails yi ci yeneen bunt yi ñëw jànq boo xam ne amagul jëkkër gént gis kër gu kër gu yaatu kër gu rafet lan lay fii dafay firi jëkkër benn dana firi texe ñaar danay firi jikko yu tedd maanaam benn yow nga nekk da nga am jëkkër wala ñaar yàlla dana defal xéewal benn bi nag ci sa personnalité lay dellu maanaam da nga nekk ni ko xam da nga am jikko yu rafet rafet loolu benn la wala mooy ñeenteel bi yàlla mën na laa defal nga am jëkkër ci famille bi nga bokk ci sa biir famille da nga ci am borom kër gu baax incha allah yii yëpp ñëw na ci bu dee nag jigéen boo xam ne dafa nekk ci néegu sëy dana yóbbaale jigéen ju sëy ba tas dana yóbbaale jigéen bu borom këram génn àdduna lan lay firi bu fekkee danga gis jigéen ji nekk ci néegu sëy moo gént nekk ci kër goo xam ne moo ëpp kër gi mu dëkk lan lay firi day firi njéggalu bàkkaar ci moom benn ñaare bi dana firi wërsëg kooku mook jigéen bi sëy ba tasa ko bokk wala jigéen ji borom këram génn àdduna dana firi ëmb ci jigéen bi bi nekk ci néegu sëy ñi ci des bokkun ci beneen bi dana firi ko ci liggéey ci koo xam ne yaa ngi ci place liggéeyukaay dana firi yokkute ci sa liggéey kooku ñëw jigéen ñoom ñoo ko bokk dana ñëw firi wërsëg ci jëkkëram maanaam jigéen ji am jëkkër xéewal goo xam ne borom këram dana ko jot léeg-léeg dana firi nag yokkute ci wàllu dund incha allah maanaam étape bu dundin bu bees dana firi xayaat jadidam bu dee jigéen bi doon sëy ba borom këram génn at dana firi beneen jëkkër bu bees ki jigéen bi sëy ba tas dana firi beneen jëkkër bu bees incha allahu tabaraka wa taala loolu mooy dellu ci kër gi nga xam dafa yaatu ba pare maanaam kër gu mag yaatu ci biir léegi damay ñëw ci kër gu bees kër gi nga gis dafa nekk kër gu bees balaa ñuy ñëw ñu waxaat leen bu bouteilles saafara yi comme ni ñu ko faral di wane toujours ci saafara boo xam ne baax na lool ci lépp loo xam ne gàllankoor la ci cat làmmiñ wala rab wala seytaane lépp lu mu ci doon loo xam ne gàllankoor la boo jëfandikoo kii yàlla mën na la dëdd léegi jigéen ñi nga xam ne rab da leen téye wala cat ba tee leen sëy mën ngeen ko jëfandikoo incha allah mën ngeen jokk ñu ci numéro bi kii beneen saafara boo xam ne li muy def ubbi nit secret bu wér la ñu liggéey ko ci fatiha ak la lan la pour lan dafay raxas lépp loo xam ne gàllankoor ci nit ki waaye dafay ubbi koo xam ne sa liggéey dafa laaj bayre mën na la am mën nga ci am bayre koo xam ne jigéen nga ko yéex a say tamit mën ko jëfandikoo yàlla mën na la indil ubbeekoo ak kër gu baax incha allah yàlla na ko yàlla defal ñëpp ku ko ci soxla mën nga jokkoo ak ñun ci numéro bi incha allah bees nga gént kër gu bees boo xam ne bokkul ak fi dëkk nga gént gis ko bi daa yetan li ngay jàpp day firi jàmm day firi wér jàmm lay firi ak wér ci ñi nga xam ne dañu am jëkkër wala ñu am soxna ku am jëkkër wala nga am soxna danay firi lool jigéen joo xam ni da doon sëy ba sa borom kër génn àdduna walla nga jógee ci sëy danay firi jàmm danay firi wér jigéen ji ëmb danay firi ci moom jàmm danay firi wér bu dee célibataire bu góor wala bu jigéen dafay firi am jëkkër wala am soxna ci diir bu gàtt gàtt balaa yàgg incha allah maanaam kër gu bees tàq nga gént gis ko jigéen ji nga xam dafa doon sëy ba tas léeg-léeg dina ñëw firi jeneen jëkkër incha allah yàlla dina ko indil maanaam maa ngi ci kër gu bees gént jënd kër gu bees ci célibataire célibataire nga boo xam ne amagoo soxna nga gént jënd kër gu bees dalay firi soxna lay fii firi d'abord waaye taaru kër ga nu mu toll yàlla mën na laa may soxna su taaroo noonu taaru kër ga na mu mel yàlla mën na laa may soxna su amee wërsëg noonu kon baax na lool gént kër goo xam ne kër gu màgget la kër gu ràbb ñaari ci gént baaxul danañ ko indil buntu boppam incha allah gént dugg ci kër gu bees yi ma doon wax na ko doon gis wala nga ko gént dugg ci kër gu bees ci koo xam ne danga am soxna wala koo xam ne da nekk ci néegu sëy day firi wërsëg day firi xaalis dana firi ëmb ñett yi dana ko firi benn wërsëg wërsëg dafa yaatu moo tax may wërsëg may wax wërsëg di firi xaalis léeg-léeg wërsëg dina ñëw du nekk xaalis leneen lay doon dana firi xaalis taxdidan dana firi ëmb maanaam bu ko góor géntee danay firi ne soxnaam ëmb na bu ko jigéen géntee danay firi ëmb ci moom maanaam gént dugg ci ci kër gu bees ci biir gént gi nafsi ruya jigéen boo xam ne dafay nekk ci néegu sëy waaye jamono yi ñu koy gént dafa nekk ëmb dafa ëmb lan lay firi boobaa day firi yàlla mën na ko may doom bu góor ci chart nga gis ne kër gi xaw na yaatu bu dee da gis ne kër gi dafa xaw a ndaw xaw xat ci ku nekk ci ëmb dafay firi doom bu jigéen ci moom incha allah tuxoo ci kër dem ci kër gu bees maanaam fii nga dëkkoon nga génn am kër gu bees ba tuxu ci kër gu bees ga léeg-léeg danay tukki balaa yàgg incha allah ci diggante bu gàtt danay firi liggéeyukaay palaasu liggéeyukaay ci ko amoon liggéey ci am liggéey danay firi yokkute ci liggéeyam bu dee commerçant bi dinay firi bénéfice ci commerce incha allah tabaraka wa taala kon gént gu baax baax na waa kay bu dee euh, célibataire célibataire gént toxoo euh, ci kër dem ci kër léeg-léeg dana fi labat bu bees maam yàlla mën la indil ku la ku la labat si te labat boobu sëy mën na ci am incha allahu tabaraka wa taala bu ko defee lii moo dellu ci gént gis kër gu yaatu ak kër goo xam ne kër gu bees la dana ñëw ci yeneen bunt yi incha allah ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.